ñu nañ ko bu baax di am mbégte contentement ci waa Foundiougne ku ci mel ne nag Babacar Niang producteur Iba wàcc ñoom Pape Moussa euh, Cissé ñoom Mansour Sayoun ak Thiémakho Ndiaye ñoom Baye Dior tous les habitants de Foundiougne Grand ñu ngi leen di nuyu di am mbégte contentement ci Alaaji Njaga Ñang Fatou Sidibé jigéenu tubaab di nuyu tamit Aminata Kanté sans oublier Ibrahima Niang Adja Sofi Seck ñoom Adama Sidibé sans oublier aussi Ndey Soxna Diaw Awa Samb ak madame Diaw euh, bi nga xam ne nag mooy chéri Diaw Madior Khor ñu koy nuyu bu baax di am mbégte contentement ci Fatmata Gumbala ñoom Anta Diallo bu Masek Thiam nuyu leen ko Sumbulu Bathily Aïssata Niang waa banque BAO ñëpp nuyu leen leen woo di am bëccëg contentement ci ñoom ñëpp nag ziar na leen ziar wër fi ñuy def nag mooy seeti Ablaye Wade mi waroon cool yi tey si journal populaire nee na un million de personnes la soxla Ablaye Wade nag tey ma déparé buntu këram pour dem ca France ba le 19 muy soog a ñëw ñan ñoo ko woolu ay mbokk Viviane Wade ñoo ne ko ne ñëw ñu sangat ko defar ko bu baax bu demee dina am lu ëpp un million Ablaye Wade ca yoonu tukki ba ca aéroport nag 呀！爸。 maa ngi am mbégte ak contentement waaye am naqar ak tiis naqar bi nag kenn gaañuwul kenn wàññeekuwul mooy fukki fan ak juróom yi ma leen nar a woon ginnaaw dem France ma nar am lu ma metti ngeen fees aéroport yéen ñëpp ngir teeru ma pour tatagal ma ma dem France ñëwaat yii nag mooy bagage yi ma fi dese ndax seddaay ba nekk ca France Viviane woonoo ba wax ma ko sama yoonu tukki bii nag comme que yéen laay mujjee gis maa ngi nii ci aéroport bi di leen xamal ne ngeen ñaanal yàlla teg ma ci yoonu jàmm ma dem demal jàmm ñibbiseeg jàmm li ma bëgg nag mooy un million un million de militants yuy ñëw fas yéene ma teeru loolu laa bëgg ndax mën na ne wala mënul ne. mën nga ko am de farawaati ñaar. li ma bëgg mooy. secrétaire général coordination yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite coordination yi kenn ku nekk sas naa la deux cent mooy ñaar téeméeri militants. dëgg la. Adja Wara Sarr ñaar téeméeri militants. Madické Niang ñaar téeméeri militants. jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi Aïda Mbodj mën na ko dana ma jox téeméeri militant ñaar téeméeri militant ak ñetti téeméeri militant buñ ko dajalee xaymaa ko war na toll ci million militant loolu jar naa tàccu léegi li ma bëgg mooy ñu xam ne moom ma sama bopp ndax Sénégal Kébémer laa juddoo may taalibu murid nag bu dëggu te laqatuuma jébbalu na fang ñëpp xam ko sama doom li ma doon nekkuma di wax tey lii suba wala gannaaw suba dama judd di murit te laqatuuma moo taxit ma ne si bu neexee yàlla dama bëgg ngeen def lu kenn musta def mooy un million de militants mën ngeen ko parce que Macky Sall kenn topp ko yéen yéen a ëpp man li ma daaneel mooy coalition dañ maa sot man gese léegi nag nit mbokkam sama soxna nee na ma ñom ci sen aada ak ciosan dañ ma bëgg ndëppal ndëppal moy wa parce que ñu ngi ut ay pexe waa APR ñu ngi ut ay pexé pour dema fagagal te bu ma ko nangul loolu ñu bëgg il veut me tuer ces gens là man buma ma rayul Abdou Diouf rayuma du keneen ku ma rey bu jugewul wu yàlla yalla naa ko bokko ci wasura no yi déedéet du ñoo ay yëkkatil mu jóg boo di ko Coro waaw mané ne Coro Sarr abdou farawaadi njaag daara waadi njaag yow ma yow ma anda ma ne ngeen xam ñaari mbir tey laay xam ndax bëgg ngeen ma fii laay jaare bàyyi politique maa koy compter sama bopp kenn du ma nax je veux un xam ne da ngeen koy wane mën a jot toog ku romb nuyu ma ma jox la loxo ba ngeen mot million may soog a tàmbali

ndax Viviane Odette ko jur Odette Henriette ko jur waaye Henriette ak Bordeaux ñoo bokk ndey ak baay bu leen foog na yéen Sénégalais yi rek a ma fal y a des y a tubaab yu xonk tur ñoom Roberta Henriette ñoom Booba ñoom ñëpp ay nit na yoo xam ne ay sëriñu tubaab ñoom ñoo ne ma naa ñëw bu mas jàmbalee ba mu saf ma wàññeeku jamba ba mu saf ñu boole jàmb tubaab ak jàmb nit ku ñuul mu saf sapar sapar kon samay bagage ngi ni ñu tàllal loxo yi def ñaan bu ñu ñaanee ba pare ñu xumbal tëj yàlla teg ñu ci yoonu jàmm te nag ngeen ñu faratal di bàyyi tamit di sàkku sénégalais yi militants yi bu ñuy ñëw meeting nañu indaale sijaada ak basang ñu def ko camp de révolution ba toog fa tant que Macky Sall demul kenn du jóg na ñëpp indi seen añ ak reer ndekki nelaw yëpp on va aménager le boulevard général de Gaulle dëkk fa ay ca bismillah ñu def ñaan bismillah ñu def ñaan ah, yàlla na fi mag Macky jóge nu mu gën a gaaw yàlla bu ma la koy ree noonu ah. nit ñi di ñaan ngay ree moom da nga xam bu julee lan la may ñaanal ah moom bu julee da nga xam ndax day ñaan yàlla na góor gi dee mun da nga ñaan ndax maa koy baare yow baal ree de xanaa kii mooy bisimilah ñu tàmbal maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla wadd njaag yàlla na yàlla wàññi ko ci songum xeej may leen ma ma ñaan waaye dégg naa indi na bato bi yow Fra moo nga ne leen wedd tàll leen loxo ma ci jaaxal dégg naa na bato liif de ngi ñaan yàlla wàññi samay at ba ma maase ak magi di ñaan yàlla samay at ba ma maaseeg Macky. amiin yàlla may ma doole kattan bi mu may Macky. amiin te ma ko ëppale ko téeméeri junni yoon. yàlla yàlla xëy rek mën na ko mabal léegi rëbës ñëpp génn te kenn du gaañu. yàlla yàlla jékki-jékki rek Macky Sall soppeeku mel ni doon moom ne ku dul Ablaye Wade doo dara. amiin amiin yàlla na Moustapha Niass ak Dansokho jékki-jékki xuloo xuloo bu metti tamante dem ak sàcc dinante bam gune gi ne us ca biti ma tëj koog ñaan bii na bu naree ñaaw te kenn narta ñëw ci meeting bi yàlla na yendoo taw fanaanee taw ba francophonie bi di taw xalak yat ak pusog liif kon góor gi mu ngi ñibbi gi mu ngi ñibbi gi ñibbi Muni ni